mbokki auditeur auditrices u rajo Mubarak FM mbokki téléspectateur Mubarak TV ñi ngi fi tay ci euh, établissement Beye et Frères ci boulevard Elmanel Fall nek ci ginnaw gendarmerie bi euh, fi nak boutique la bo xamanteni bi lepp luy pièces détachées donc euh, man ngeen ko fi amé donc ay pièces détachées yu am solo yo xamné la plupart marque allemande la te lu way dégg di dégg di olof dégg ñu naan allemand ñàkk donc je pense que un bagage non la mel moo tax euh, Beye et frère dem indil leen ko fii ci Diourbel pour que vraiment dootu leen jéggaane lépp loo xamante ni moom mooy ay pièces détachées automobile bu loolu passé it am na ay oto yoo xamante ne bi marque américaine la yu baax ñoom itamit yoo xamante ne bi yëpp Beye et frère daf koy jaay donc ci kaw loolu rek euh, dañuy jokkoo ak ki nga xam ne moom mooy gérant boutique bi ñu waxtaan ak moom euh, moo xamal ñu dëgg dëgg dëgg dëgg lan moo yil la boutique bi lan motax ñu samp ko fi deug deug ak yan client la xaar ak prix ak yoy yep nan lay démé xamna ci kanam tuuti suñu reportage dina gëna leer bi ñu bayila rek nga joxe sa tur. da ya gérant magasin B et frère bi nek fi ci Diourbel ndax mën nga ñu wax euh, lu waral ngeen samp fi établissement bi. wa fi lu waral ñu samp ko pour jàppale wa Diourbel rek ndax dañoo gis né Diourbel fi dañuy def. des fois lu fi manqué rek presque dañuy dem Touba loolu lépp nag dañ ko fee bëgg a jëlee tey ñun pour ñëw jàppale askanu jurbel lépp loo bëgg rek ci wàllu pièce daal jàpp naa ne boo ñëwee fii di ko saafara nu mu gën a gaaw daal. Mhm. loolu daal yan façon pièce automobile ngeen di jaay. ñun marque yëpp rek bàyyiwul benn waaw marque yëpp daal dañ koy jaay waaw bawuñu benn. yan moo gënoon a raar ci Diourbel te kay te tey ku ñëw fi fekk fi. mais Diourbel yi ci gënoon a raaw moo doon oto yu bees yi soo ko wàcc daanaka yooyu seen pièces moom amutoon Diourbel hmm. ancien yi rek ñoo fi amoon waaye nag suñ boroom jàppale nañu loolu lépp moom ñoo ngi koy indi daal hmm. dinañ saafara lépp daal incha allah hmm. bu neexee yàlla d'accord mais xanaa nga sitil ñu ci rek par exemple euh, yenn ci ay pièces détachées yoo xamante ne boo ko waxee askan bi xam bu baax a baax ne fii vraiment ah, waaw fii comme lu demee ni ay croix croix daygo yi dañ ko fiy jaay croix yu baax la yoo xam ne nii moom macha allah ay batterie allemand yu baax ay huile allemand yu baax dañ ko fiy jaay ay soin classe ay cartouche huile mm-hmm. yëpp daal ñu dara mm-hmm. lépp loo xam ne daal lu jëm si wàllu oto la mm-hmm. boo fi ñëwee daal incha allah moom da nga ko fekk bu neexee yàlla bon ku wax oto wax huile te nee nañ en général euh, huile moom moo yor oto mu mel ne huile bi euh, je pense que marque Safari la xaw ma hmm. euh, je pense que ne huile bu baax la de bii rek yaakaar naa waaw bii moom waaw lan mooy spécificité ak beneen kii bi. bii bu hmm. oto bu bees la moom. boo ko ci defee moom lépp day dégg jàmm. Hmm. du am benn jafe-jafe. am na beneen boo xam ne nag pour oto yi nga xam ne pour ñooy def tax comme bii. vingt double V cinquante bi mhm. bii moom it baax na de ci taxi mhm. bii moom boo ko jëlee macha allah mhm. te pris yi daal seerul sept mille rek lay jar bii bu fekkee vingt double V cinquante bii sept mille lañ koy jaay bu dee quinze double V quarante bi moom it seerul dix mille dix mille francs rek lañ koy jaay huile yu baax la même même il bu baax la il 5 fait 30 bi bi il bu baax la serni hmm. bi dañ koy jaay momit it 22.000. momit 000 moom allah hmm. kon dal ban ban appel ngay def envers client yi envers jurbel en général wa client yi mom ñu wax leen rek mom ñun mom yag nañ fi xam nañ ñu fi jurbel hmm. waaw client yi moom macha allah ñu ngi ñew ndank ndank fi mom wax deug yalla sante yalla rek di ñaan suñu borom yokk xewali bu baaxa baaxa baax Mm-hmm. di ñaanal ki yaay jam mm-hmm. voilà donc kok mo do non gérant magasin Bey et frère euh mi ngi lang ak nak ak promoteur bi euh, donc euh, monsieur Bey mais dañuy waxtaan aussi ak ki nga xamantene bi fi lañ ko fekk ci magasin bi dañ pap autant pour moi <laughs> Pape salaamaaleykum. Eh, maaleykum salaam DG ñoo ngi lay jaare bu baax euh, di jaare aussi moo ami la Ndiogo Bey. Mhm. Euh, nekk la promoteur euh, Bey et frère. Mhm. ak le gérant aussi. Mhm. vraiment di remercier aussi son ami Pape Faye wax dëgg yàlla ñëw fii nag aussi di témoigner lu bëri loo xam param am na ci bitig bi. mu nekk loo xam ne aussi innovation la boo xam param bu bees la. parce que bu ñu daan soxla ay pièces wala ñu soxla leneen. dañuy dem wuti ko Touba la ñu wuti ko Thiès wala ñu wuti ko leneen. désormais maintenant à partir d'aujourd'hui je pense que ni képp koo xam ne bëgg nga loo xam ne nii maanaam dana dugg sa oto muy problème mu ndoxu radiateur muy problème huile muy problème ay huile varin ak lépp lépp am na fi te lu xéewale la te mu nekk loo xam ne aussi dañuy ñaax chauffeurs yi mécaniciens yi ak yëpp ñu jege si Bay et frère pour mën contribuer pour développement Diourbel ak euh, vraiment luy doxal dëkk bi te defe naa ne yu mel nii manqué woon na fi te suñu borom indi na ko fi na ci ñëpp dugal seen loxo pour au moins ñu gis suñu raw suñu jort di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni Béyeur Frère ca kaw ca kanam. jërëjëf bon gis nañ fi ay radiateur ci biir gis nañ fi ay euh, joint de culasse euh, gis nañ fi yu bari dal yo xamante bi franchement fi pour nga doon ko fi am problème lay doon donc yooyu aussi je pense que ne jot na euh, ñu woo askan bi ñu ñëw seet si loolu. waaw surtout si saa hein, parce que bo calculer par exemple gis naa fi ay calandre amna fi radiateur amna fi ensuite amna même day indalé ay marque au Ford li nga xam ne moo fi gën a raar te oto yi daf fi am parce que mara yi dañ koy utiliser ak euh, autorités yi te buñ daan am ay pièces problème pièces Dakar la ñuy dem wala dem feneen d'autant plus que léegi buñ contacter billet RFR directement mën nañ ko am fii te du doon nekk lu xam ne lu jafe lay doon mais xéewal lay doon ba pare ñu calculer que par exemple lépp loo xam dafa dugg ci dëkk waa dëkk baa ko mën a doxal pour développer dëkku dem aussi du kenn du dem jóge Dakar di développer Diourbel mhm. mais ñu njëkk du Diourbel ñoo mën a développer Diourbel pour ñu développer Diourbel nag dañuy jël li nga xam ne moom lañ am def ko ci biir dëkk bi mhm. waa dëkk bi wuy si leen ba pare def ci leen am mhm. pour dëkk bi mën a développer

nekk quelqu'un boo xam ne par exemple il a fait énormément d'années au niveau mm-hmm. bu ñëwee di investir ci biir dëkk bi waa dëkk bi war nañoo mën cee jàpp pour loolu mën a gën a suqali ko ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di woo waa Njaareem yëpp na aussi ñu ñëw dugal seen loxo mm-hmm. waaw jërëjëf Pape Sarr ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant xanaa bala ñuy tàggoo kon euh, ñu jox la gérant euh, mu joxe numéro téléphone yi nga xam ne ku leen bëgg a foofu la leen mën a jot ah numéro téléphone yi nga xamante ne bi euh, ku leen bëgg a rek foofu lay wootee

numéro yooyu daal mooy numéro contact bi ku ci contact rek da nga ñu jot. bu hmm. neexee yàlla. loolu bëgg rek mën ko saafara incha allah. jërëjëf kon ginnaaw numéro yi rek ñoo leen di fàttali place bi boulevard Elimanel Fall ginnaaw euh, ancienne gendarmerie bu Diourbel bi. donc foofu la ñu bose euh, basé wu ci peinture verte jaune rouge bi képp ku fi ñëw rek lépp loo soxla ci pièce détachée automobile mën nga ko fi am. Euh, boo defee aussi ay commande mën nañ la ko indil ci nu mu gën a gaawee bu ngeen soxlaa aussi ay oto marque américaine. yëpp a ngi fii chez Beye et donc euh, salaamaaleykum wa rahmatullah haram lo kuma bawa duhar majom ni